asalaamaaleykum mbokk internet yi yéen ñu suivre dakarnet.com euh, tey ñu amoon mbégte ci suñu plateau di dalal euh, Youssou Dieng di directeur artistique Wally dañ koy jox kàddu yi mu nuyoo après ñu dikk ak moom ci waxtaan Youssou ñu ngi lay di la ziar. di fay bu baax di kontaan ci dalal leen vraiment di nuyu Sénégal gépp di ndokkeel suñu mbokk chrétiens yi nga xamante ni weer wi seen weer euh, di leen souhaiter un joyeux Noël. di profiter ci occasion bi aussi di souhaiter à tous les Sénégalais une bonne et heureuse année ñaan yàlla at bii ñu dëgmal yàlla na daax bi ah ba lii yëpp mujj doon nettali ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu gis tamit si Dieng ah, fu ñu gis Wally gis ko ñu ne sax moom mooy directeur artistique Wally ñooy laaj ah, Sénégalais yi ñu seetaan tey soxla nañ xam lan mooy artistique leeral waaw euh, Wally dañuy liggéey on travaille ensemble ça fait de cela des années tubaarkàlla ñaan yàlla mu defal ñu ci ay ndam directeur artistique nag du dara lu dul ki ñu tànn ngir mu càmbar liggéey ndax waa li muy def aar la aar nag boo koy def daf ci am liggéey boo xamante ni euh, lu ñu war a xalaat la d'abord defar ko ba mu neex wone donc directeur artistique bi du dara lu dul lépp lu jëm ci liggéey bi mm-hmm. lu ko cettali mm-hmm. ah, ci domaine bi yëpp balaa génn mm-hmm. ñu xool d'abord lan moo war a génn ah, ci musique ci way ci spectacle hmm? ay yoon yoo xam ne dañ koy xàll ngir yaakaar ne artistiquement bu ko artiste bi tegee mm-hmm. nit ñi dinañ ko rafetlu dinañ ko gis ne am na liggéey d'abord parce que nit lu muy def lu ne war na fexe mu am liggéey balaa mu koy présenté mm-hmm. parce que ñiy seetaan ak ñi nga xamante ne ñoo lay bëggee mm-hmm. foog nga am respect envers ñoom bu dee fii ci réew mi d'abord ndax balaa ngaa jommale dangay fexe euh, di jinne ca fa nga dëkk donc euh, loolu mooy directeur artistique ci domaine bépp daal ci gàttal ci tënk lépp loo xamante ni daal euh, waale mi ngi koy wone ci musique ci spectacle am ah ci euh, programme boo xamante ni ci carrière moom la war a teg ngir fi ñu yaakaar ne ak fi ñu am yéen mu àgg fa ah, représenté Sénégal ci domaine yëpp ci musique musique mu mu àgg fa mais ci jaar-jaar boo xamante ni vraiment day am maanaa ba kenn du ko dut baaraam wala kenn du ko critiquer wala bu ñuy critiquer tamit du bëri ma ànd ci nag ak ak ak équipe ànd ci ak équipe parce que Faramareen euh, groupe la ah, groupe la boo xamante ni liggéey bi dafa bëri xëy na gars yi léeg-léeg ñu ci bëri dañ dul am dañu ñamewul caméra yi waaw <laughs> ah, moo tax toujours ngay gis Youssou Dieng mais équipe bu mag a mag a mag moo nekk ci ginnaaw ah, muy raam daan faramaare ñoom tamit léeg-léeg ñëw fekk ma fii ma ne ah, xalaat dara jox ma ah, ah, ku ci mel ni Amady Badiane Papis Ndiaye njaay Fallou njaay Benjamin ah ñuy ay ndaanaan yu mag yoo xamante ni saa yu ñu génnee nga xam ne ay ndaanaan lañu te li ñuy def yëpp ñooy ànd waxtaane ko ba mu rafet lan mooy lan mooy relation ak Wally Seck Wally mbokk la d'abord mbokk la waaw waaw sama mbokk la ñoo bokk maam waaye ni bokkee dafa dafa compliqué dama bokk kinne ci warsil la moo jur mhm. Ibrahima Jëng coro koddu mu jur alaaji sanu jëng sanu jëng jur alaaji papa jëng warsil ak baabu menda ñoo bokk benn ndey baabu menda jur soo dëggee soo dëggee jur Marie Ambrose Marie Ambrose jur ndey wuri ba mu jur kinne Juuf mhm. kon loolu mbokk la de waaw loolu ci benn côté la bu ñu demaatee ci euh, sama côté yaay ñu bokkati dafa bokk sama pap li ma lay wax ni sama côté baay la ci côté warsil la ca jangeen ga léegi ñu ñëw nag ci ci daawur njaay mu jur màgget njaay sanu mu jur papa mu jur ma daawur njaay ak aram bakar fay si nga jëre ngoon a jéey boo dégg ñaan baytir ma jigéen mbor ak alima jigéen mbor dañu bokkaat ak côté Pape Kiné muy El Hadj njaay Ndiaye Koura. mun nañoo jàpp ni que yow. nii waaye dañoo ndobiné ni ñu bokkee dafa garaaw ba nga xamante ni dafa bokk ak sama pàpp ci côté ndey ak côté baay. Mm-hmm. bokk ak sama yaay. te léeg nga dégg wàll naan sëñ sëñ biram ngay kii yaayoo jaaj maa bàyyi ma ak jaxeer ñu bokkee ca baytir ma jigéen mboor ak alima jigéen mboor ndax nag euh, fii ndakaaru géwél yëpp ay mbokk lañu. Mm-hmm. ndax njekke mi ñuy mi ñuy meññ moo seex ñeenti yoon. te xam nga ne seex ku seex ñeenti yoon. Mm-hmm. ah seex yooyu ami njaboot. Mm-hmm. ñu tas ci àdduna. noo def ñu bokk. Mm-hmm. ni ñu bokkee daal waali ñaneen la. waaye nag mbokk gi xarit gi ko ëpp. daf ma gis wóolu ma doyloo ma euh, am gëm-gëm ci man. comme j'ai l'habitude de le dire. waali bokk na ci ñi ma njëkk gëm. waali waaw parce que euh, gëm maa tax mu wóolu ma. et puis euh, doyloo ma. nit ñi ñu ngi naan est-ce que ñu topp waar yi topp nañ ko ndax intérêt. waaw ñun dañuy wax xam nga nit ñi moom <laughs> gannaaw yonent bee muccul ci seeni wax. kon ñun ñii nga xamante ni tekkiwuñu dara. nuñ ciy muccee. <laughs> ah nuñ ciy muccee. Mhm. garaawul loolu du dara waxi sénégalais la xam nga sénégalais moom. Mhm. daanaka euh, bëri na ñu lay wax wax ju ñaaw. Mhm. dañu teg bët fa nga ne. bu fa amoon place wala ñu jote fa. Mm-hmm. du ñu wax dara dañ naan pat waaye comme amuñu fa place. Mm-hmm. jegewuñu fa. Mm-hmm. xamuñu la fa xew te buñ sañoon xam ko. wax ju ñaar rek la ñu mën mais loolu du dara xam naa ne daal li may wax chaque jour mooy àdduna ku xëy rek da nga ànd ak ay nit. te Wally nit la. ay nit lañu. ànd ak euh, du ma ne nawuma ko sax. waaye euh, du lu extraordinaire. ndax doomu aadama rek la. ñu ay doomu aadama bu ñu àndul kan ñan ñooy ànd dañuy ànd ak xar wala ay xaj <laughs> amul benn problème comme ñu ngi ciy gis intérêt bi rek amul benn problème. waali lu nekk ci ginnaawam. Mhm. ba ah, mooy mooy ba muy def ay spectacle yu yéeme. Mhm. léegi loolu noonu damay laaj ba xam ah, ñi nekk ci waali ay jeunesse am ay moromam ñoom la wala da am ñee ñu ñuy jël pour teg ko ci euh, mooy pour renforcer leen. Wally daal euh, dafa am ay ay ay nit yu baax yu ko yéene. Mm-hmm. mais moom moo moo moo ko moo ko moo moo bunt bi. Mm-hmm. gis nga euh, ku yaakaar ne am nga maxaama. Mm-hmm. ba foog ne nit ñi fekk la fa. te bëggoo ñu nekk ak yow ndax nga sa bopp. waale bés bu xëyoon won nit ñi ne sama ànd ak yéen tey laa bëgg mu yem. mu yem bu ko waxee woon tàkkusaan balaa timis ñëpp dem seen yoon. ak succès bu mu am yëpp bu ko boole woon ak di toroxal nit ñi. Mhm. wala di leen yemale. Mhm. wala bu ñu waxee moom du ko dégg mais ku ne dem sa yoon mais sa xam ne dinañ dinañ def spectacle ba nga xamante ni jour ji mooy mooy une. Mhm. ci la waal di yëg li xew. des benn jour ñu ne benn. ci la ñuy wax waali kaay mu ñëw ñu bërëfin ko lii ngay def ak lii ak lii ak lii. te bu demee da ngay appliquer. ah mais bien sûr fii la ñuy commencé yow fii ngay duggee bu ñu demee ba fii kii mooy dugg bu ñu demee ba fii lii mooy am lii mooy am lii mooy am lii mooy am. tey li nga jékki-jékki toog ne waali defal li waal la noonu du ma def loolu. ah bien sûr <laughs> waaw waaw. Hmm. waaw waaw lu dul benn du ñaar sax yëf yi du forcé di sama doom ji ma ma ma jur ci sama ndigg lii sax. Hmm. léeg-léeg ma def loo ko dara mu bañ di. sam pap am na lu mu bëggoon ma def ko defuma ko te moo ma jur. d'accord te waale juruma ko nag. Mhm. <laughs> <laughs>